xamante ne kenn dootu ko euh, présenté muy Carlou D euh, Carlou maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. ñu ngi fay soxna si. Euh, Carlou nga ñëw teew ci li nga xamante ne moom mooy dialogue national bi déjà naka nga gisee dialogue bi ak lan moo waral nga teew. waaw mooy li ma wax sama mbokku sama frère bi tout à l'heure mooy que dialogue lañu woote et puis ñun dañu bokk ci ñi xam ne dañu bind xaatim ne nu président bi ci boppam moo bëgg nga teew donc en tant que citoyen en tant qu'artiste li ñu war a def mooy ñëw wuyu si woote njiitu réew mi teew déglu lu mu ñuy wax. ngay porteur de voix euh, gis nañ ne crise bi am ci euh, dëkk bi déjà naxa nga jàngee li nga xamante ne moom mooy euh, tension bi am. ñaawlu ko ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem njiitu réew mi laa ci njëkk a woo ci mu gën a déglu peuple bi jàmm moom la ñu bëgg moom la ñëpp di woote. donc euh, duñ demee ba ay bakkan di si rot loolu c'est déplorable ñaaw na torop sincèrement bu ñu sañoon dinañ def lépp ba kenn du gaañu kenn du am lenn lu la métti honnêtement. leneen li mooy tey ñëw nga ci dialogue national bi yow lan nga ciy xaar lan mooy sa attente. ah suñu attente mooy attente sénégalais yëpp mooy njiitu réew mi yeewi jaam ñi euh, organiser ay élection ci ni mu gën a gaawe ñu tànn keneen mu jiite réew mi ñëpp topp ci ginnaaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup euh, mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy euh, Carlo Di dégg ngeen ko li muy xaar rek ci dialogue bi du leen lu dul ñu fexe rek euh, dal di amal élection yu gaaw bu ko defee askanu Sénégal mën a am possibilité ñoom itam tànnal seen bopp ki nga xamante ne moom mooy président.